maaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum téléspectateurs yi maa ngi nuyu képp ku seetaan seen télévision Walfadjri di am mbégte ak kontaan di jàkkaarloo waat ak yéen ñi nga xam ni yéen a safoo leeru jamono di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq gannaaw bu ma nuyoo ba pare damay dugg ci ñi nga xamante ni si dañoo tawat nekk ci la tëdd ci lali hôpital yi ak ñi tawat nekk ci seen i kër yal na leen yàlla saafara ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa bu ma génnee foofu damay dugg ci ñi nga xam ne caabi da leen féete gannaaw yàlla leen fa yàlla génne te bañ a leen faa dugalati ci barke yonent bi macha allah ginnaaw ay bés ne nag dañuy dal fii ci seen rajo télévision wal fajri bi ngeen taamul seen bopp di leeru jamono di leen defal lan grand soir jonge macha allah ma ci daan feggoo ak sama naataango Awa Diop Ndiaye Diagne yàq yaay Baaba Diagne mu manqué ma lool nag macha allah. tey jii nag ñuy defal ñu leen di defal jonge mu tombe ak 8 mars journée mondiale de la femme ñu fas yéene cee waxtaan lu neex lu am base ma dalal fi nag macha allah ñoo xamante ni si bu ñu commencé di ngeen kontaan euh, Maguette Ndiaye sama mag sama xarit dëkk fële ca amu ak euh, Pape Ousmane ma leen di bàyyi ngeen nuyoon teg euh, téléspectateur yi Maguette Ndiaye rahman ñu mus ko saytaane asubillahi min saytaan rajim laa xawla wala xawata illa billah al azim ma kontaan trop nag invitation di ñaan yàlla yal nu yàlla teewe ay déwén yu bari barke yonent bi huit mars la wax mhm. journée de la femme mhm. kon ñu kontaan ci baax ba nu dugg ci waxtaan wi mhm. ci barke bi du nuyu ñëpp nag di sa asalaamaaleykum Rama maa ngi lay nuyu. di njëkk a nuyu sama yaay ju baax ja soxna aw a Seex maa koy ziar baax ndax teele la mars. di nuyu sama sëriñ ba imam mam Baba Sarr ca gën gi waaye di nuyu sama nijaay ju baax ji El Mor Kandji waaye tamit fàttewuma sëriñ Modou Abibou Mbacke waaye tamit di nuyu góor ñi benn yoon di nuyu jigéen ñi junni yoon daañu ma du tax ndax amuñu seen fay li mbott di tëb nawet koo nar a tàcc sa baxaw booy waaye téeméeri dégg naa benn maa fekkee ko mën mm-hmm. waaye rege ju bokkul ci bët waaye dafa fees fees loolu sama yaay xañ na ca rama mhm. dama lay sant ndax lan mhm. sikkal ba ca jaaj la ak jag-jagal ba ca njaañ waa ji dafa dem jaaj di ñaan soxna ñu sikkal ko mu dem njaañ jaaj dafa dem jaaj di ñaan soxna ñu sikkal ko mu dem njaañ ñu may ko xew am jaaj xew am njaañ te ku lambu yaa tey daagu fañ la nobe ma yow laay sant ndax programme yi bëri nañ tey ci télé yi mais yaa ma invité fii dëgg la tey nag mu mel ni ba Mor sàccee mbaa mu law bayee jaay ko jaay ko ngéwal ga mhm. tey lay xumb tey lay dëgg bi may dugg sa borom kër daf laa sant te yóbbante àq la ku la gërëm la nee na bërki démb waaye wala temps yi passé ngeen doon feete seen ah, seen benn at waaye yàlla na nekk téeméeri at yàlla nekk junni at ndax dang nga kaa toppatoo mhm. ndax nag wax dëgg yàlla bu ko am bu ko defutoon boo ko defutoon du ko wax mhm. ndax rama mbaxalu mbalaxum yuur borom xel a koy dakkase mhm. tey mu mel ni ba waa ji duggee ca kër ga di contact lampe ba far jaawale ak ak musunu wal ba tey rek luy xumb tukki ñu namm la rama ak ñu wuyu la ak ñu déglu du ko jug ko boo tukkee ñu la boo wootee ñu wuyu la boo waxee ñu déglu la mhm. kon nag wax dëgg yàlla rama dama naan la doo jaar tëngéej ku la fay sént du la gis yow APS ngay jaar doo jaar ci embouteillage bi kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm dama naan la dóoral sa kase ba fi sa signature tooñoo kenn koo xulool moo la tooñ dama da ngaa waaw yow nuyoo bi neex na ba pare nuyoo bi neex na ba pare ah nuyoo bi neex na ba pare macha allah macha allah nuyoo bi neex na waaw waaw nuyoo bi neex na waaw tey nag ñuy waxtaanee macha allah lu neex. Mm-hmm. nee naa 8 mars bi moom neex na ba pare. yàgg na ñun ñoo ko moom. Mm-hmm, macha allah bokkuñu ko kenn. Mm-hmm. waaye nag du tey ñuy ñaax jigéen ñi ba tey mhm. di waxtaan ak jigéen ñi ba tey ndax xam nga ñun jigéen ñi dañoo xaw a ëppal mhm. te buñ ñu joxee lépp rek dañuy dañuy bëgg a jël lépp dañuy jox fii ñu bëgg a jël ba fi moo tax tey jii ñuy waxtaan ak jigéen ñi gën leen a ñaax ñu gën a mhm. góorgóorlu ndax góor ñi tubaar fakkaala tey jii génn nañ dépense bu duun añ togg reer uh-huh. defar ba mu baax wallaay ndeysaan ah mm-hmm. te loolu ñun la waroon ñu wëlbatiku sargal ñu <laughs> ah xam naa ne yow sax togg nga loolu dinaa ci lañ togg dara baaxu ca nag ndax jigéen a mën a togg <laughs> góor ñi dañ bàyyi togg mi tey la ma ndékkee ak la ma añee dara baaxu ca moo tax reer fekk ba suñ kër <laughs> dëgg la looloo mm-hmm. tax nag euh, ñun ni euh, jigéen mm-hmm. ñuy waxtaane lu am solo nangu ndey ju liggéey moom lañuy ñuy waxtaane tey dëgg la mhm. dëgg la ñu ni nday ju liggéey amul nday ju nangu moo am mhm. looloo waral tey jii ma dalal leen ñu waxtaan ci bu baax a baax lan mooy nday ju liggéey Maguette Ndiaye waaw man loolu boo ma ci laajee dinaa sawar trop mhm. parce que jigéen ñi d'accord tey le 8 mars ñu ko jigéen ñi mais nu gàtt xel ndax suba mu ngi ci ginnaaw tey mm-hmm. te ëllëg doom yee nuy dimbali mm-hmm. te bu ñu nanguwul du sotti mm-hmm. dañuy jaawale ndey ju liggéey ak ndey ju nangu parce que boo nekkee sa borom kër xoole ko sa bëtu papa yërmande ji daw sa diggante ak sa njaboot di daw ci digganteem ak moom nangu foofu la commencé xam nga ku sëy da nga togg Mm-hmm. da nga fóot mm-hmm. danga nga paase mm-hmm. nga raxas waaye loolu yépp ci waa kër gi nga koy defal waaye guddi nag sa jëkkër ko moom te nangoo ngi ci guddi nangoo ngi ci nit wax la sa borom kër wax la nga ne dégg xool ko ci bët yërëm ko wuyu ko te bañ def ko wuyu bo falaa da nga koy wuyu di ko yërëm di ko di ko yërëm bu baax a baax a baax mm-hmm. soo amee jox la mm-hmm. nga jël mm-hmm. soo amul amal amin wu rafet boo xëyee sa boroom kër tëdd nga xam ne tey marché neexul teel la yeewu boo teel a yeewu defal ndékki rek xelam dal nga togg añ gaawantu bala ngay boo jëndee boo jëndee boo toggee añ bala ngeen añ ba pare ataay gi tege. Mhm. xelam da lool nga di ko xool bëti lii yaa ko moom yaa ma ko jox. Mhm. bu ma sax moom a dem ba xam. Mhm. waaye nekk ci kër di tëstësi di togg di fóot di paase su ngoonee wala sa jëkkër dugal la ci néeg nga wax ko wax bu sew boo xam ni. addunaam day jaxasoo. fa la nangu fa nangu ko euh, bañ fa commencé. te ku bañ yaa tooñ sa bopp de. ni nga doom yi bu nu màggee. xëy ni kirtim leen mhm. muta mhm. bu ñu ñëwee waxtaan ak yow mhm. suñu demee nga waxtaan ak sa ngegenaay lu tax kii am na lu ma def am na lu ma def ak papaam xëñ na am na lu wax naa ko wala xëñ na séq nañ loo xam ni waruñu ko woon a séq te lépp man la waaye bu sa doom dee dem jàngi wala muy examen ji ñëw ne la yaay maa ngi dem nga ne ko ah yal na la yàlla defal jàmm. mu dem nga toog sa digg lal. ñu lal bi ma toog. c'est que mosuma mhm. fa fee tooñ baaye. Mhm. kii li muytu yàlla na ko am. ci mhm. barke yonent bi. billaahi wallaahi da koy am. te kat yomal xiyaama ngi ñëw nag. te loolu lépp nangoo ko waral lépp nangoo ko waral de. nangu day cër day jël cëru bañ. te passé du togg. Mm-hmm. dañu yërëm góor ñi mm-hmm. xëy na tey journée bi ñoo ko moom mm-hmm. mais nan delloo njukkal suñu borom kër ndax ëllëg suñu njaboot gi baax bari na fi ñu tooñ seen doom de billaahi wallaahi wa taala bari na fi ñu tooñ seen doom pour la nga séq ak seen waajur wu góor a tax waaye nit bu la jëlee waaye sa waajur la góor bu la jëlee sa waajur la ngeen nga sëy amul retraite te liggéey da nga retraité. wallaay ndeysaan mm-hmm. femme au foyer mm-hmm. bu nu ci boolee nangu. Mm-hmm. wallaay ci boolee nangu. di fóot di paase di togg di raxas. di dalal gan ñi. te xam ni yàlla buur la rek nag. xalaxal mawti wal ayaat. yàlla dee la jëkk a bind soog a bind dund. te nu ala kulli alin duñ fi dëkk. dañuy dem. gis nga man ramatulaay sama borom kër ba ci àjjana mhm. yal na dee di nof laayam ci barke amiin amiin billaahi wallaahi moom rek laa gëm moom rek laa gëm parce que day nit ku baax mhm. te bët yi may xool papa loolu laa ko bët yi may xoole wajur wi ma jur loolu laa koy xoole mhm. di ko xoole njabootam moo tax dafa yar njabootam delloo si leen nag njaboot goo xam ne doon ma tiital sama taaw bu góor ba mag la mhm. waaye billaahi wallaahi am mhm. kilifa Pape Mor Mbaye mhm. am kilifa yal na ko yàlla fay ci barke yonent bi ma doon nag di tërbiyu nag te jigéen war nañ toog ba mu yàgg mu yeeslu dafa am luy rëcc léeg nga ñëw ba mu rafet nga ñëw ni sa jëkkër maa ko ma ko yees ko njëbb weer dee nga jël xaalis ba mu jox teg fee jël sa xaalis ne ko mhm. am maa ko loo mhm. day barkeelal doom mhm. te doom yi ñooy naw la te am na góor ñoo xam ne dañuy lakk jigéen dañuy lakk jigéen de am na góor ñoo xam ne dañuy lakk jigéen am na ci góor yoo xam ne seenug dal ci boppam moo tax nga di leen moytu ramatulaay nan salaat bu baax a baax nañu yeesalaat bu baax a baax tey tër bi tey waxtaan ak góor ñi di yar njaboot gi. Mm-hmm. ba ci kanam ndax yow boo ma woo. il faut ma ñëw. Mm-hmm. sama rakk nga. Mm-hmm. <laughs> te da nga dal. waaw wax naa la ko keroog ngeen te yow. sama waay nga sama rakk nga. parce que nag lu dul tey démb la woon. rama bu nu meloon ne neen du du du mel neen. dëgg sama rakk ju gëm nga. te li may wax nii yaa ko féetewoo. xam nga lu tax. danga sey ba sey Mm-hmm. yàlla weddi nga sa yaat yàlla na barkeel. amiin yaa rabbi ci barke yonent bi. amiin gis nga mm-hmm. ah, ku may teg gis nga ku may teg ci sama plateau bi rek. Mm-hmm. exemple lay doon. dëgg la macha allah moom mi exemple la moo tax ma jël ko teg ko fii ci sama plateau. dëgg la nga xamante ne si dina mën a waxtaan ak jigéen ñi. as ñu benn jigéen. dañuy waxtaan rek. dëgg la pour bëgg ñu gën a góor amuñu lu dul suñu jëkkër yi amuñu lu dul suñu sëy yii waaye Pape Ousmane. Mhm. nangu jël na cëru bañ bi. <laughs> déedéet. ajaaraama bootaay bu rafetee ca kañu boot la liir buy màtt ne xote doxantoo. déedéet. waa ji def na ma jigéen matul ma ne ko kubat moo la jur. Mhm. mu ne ma jigéen tekki ñu tus ma ne ko ku ci takkul doo tekki te ku tekki ñoo la jur. te ku ci takkul doo tekki. kon jigéen ku tekki ñu ñoo la jur. Mhm. alxuraan moo ko njëkk a màggal min kaydi kunna inna kaydi kunna azimun. ca Yuusufa. kon innal muluka ida daxalu qaryatan afsaduha wa jaalu aizata ahliha azilatan wa kazalika yafalun mhm. kon jigéen ba kun jigéen yàgg naa am xam-xam yàgg yàlla yàgg na kaa jox teraanga mhm. dama ne ki njëkk gëm Seydina Muhammad jigéen la Khadija waaliyun ibnu Arisatin ki njëkk faatu ci lislaam jigéen la muy Summiya kon Kocc Barma dafa amoon wax ju mu waxoon te jabaram moo taxoon mu wax ko jigéen soppal te bul wóolu mhm. déglu ma bu baax du waxi pénc te du waxi rajo looy làkk ñëpp ko kenn gis ko bu ko jigéen xamee ceew loo koy làqatu du ko safati kon jigéen soppalti bu wóolu du waxi penc mm-hmm. boo soppal sa jabar wóoloo ko yaa fa jaay paañ man sama jabar sopp naa ko wóolu wóolu naa ko jigéen boo ko contré foo xam demal doo fa yaatu mm-hmm. saaru jigéen moo nekk ci alxuraan waa ji daa bañ mbay Dakar na bañ na mbay dootul dootul demati tool ñëw dem caaro ju luyeeb néeg dugg ci benn kër na borom kër gi noo tudd mu ne ko mbay mu ne ko noo sant mu ne ko mbay mu ne ko koo gëm mu na ko mbay mu ne ko foo dëkk mu ne ko mbay mbay mu ne ko ci looy liggéey mu ne ko ci mbay waa ji daanu xëm kon looy gëm rek wala looy bëgg na la ci yàlla <laughs> jàppale soxna Rama bëri xar du ma tax a ngént ko wasinagul ndax aw ma jot mhm. waaye mëq suusal koo yamali lor mhm. am naa fulla ju toll ni nag bu may sangat néew néew bi naan ma fii tooyul ma fàgg ak boppam ndax aw ma jot mhm. kon boo jànkoo ni mu la neexee nga amee jëkkër ni mu la neexee boo yebeew nga sëy ni mu waree waaye am jëkkër ni mu boo jànkoo ni mu la neexee sëy ni mu la neexee du nekkul yoon kon booy sëy sëyal ni mu ni mu waree mm-hmm. dama ne ki fi boofal ki ngay sëyal lu mel ni gileem ngay jur li ngay jur day mel ni gileem mm-hmm. waaye ku fi si li ngay sëyal li ngay jur day mel ni mbott te mbott baaxul mm-hmm. day dotti dotti rek kon ku yebu fonk sa borom kër <laughs> ndax jëkkër wax la nga ne ko xam maa ko tey da ngaa soof wala ah. nga jur jànq nag bu ne wàtt kenn du ko ngoro si ndax ak soof jëkkër wax la nga ne ko xam maa ko tey da ngaa soof wala nga jur joom ju mat ta sëy waaye kenn du ko ngoro ndax da ngaa ndax day soof ku diir sa jëkkër jam sa doom mm-hmm. nañu nangul boroom kër yi may sa saa xewar mbóoj mm-hmm. ak coro bii gi asta mbóoj ay waalo waalo lañ xam tamit xam nga ko di mm-hmm. kon waalo dañoo mës a am tàngoor ñu dem tool nekk fa ci seen tool ba di bay ba marandoo jofal wuti taat fañu war a naanee ca ndox ma biñu àggee coro bii gi as sa mbuuj xëcc pot bi may sa saa xëwër pëcc xëcc pot bi mu ne ko sa borom kër laa may ma ma naan mu ne ko maay jigéen yërëm ma may ma may ma ma naan te da kaa waroon na joxal mu naan ndax mooy borom këram teral ko mm-hmm. ñu xëccoo pot ba may sa saa xewalal koy dóor ab pes talaata soxna si xëcc fetal gi daal koy diir bi mu dóoree bal bi ak si borom kër gi waafee benn la mu ne ko mooy nga bu la bu la laaloon bal bi bu egsi woon sa kaw doo nettal talaata ni mu ne ko moyul dafa dalagul mm-hmm. Mhm. ñibbi nañ ba continuer ba fàtte xuloo ba ndax dafa ëmboon mhm. ba mu amee doom doom ji ñu tuddee ko Lat Coro muy caatam Lat Coro nekk mbërum làmb daana waa dëkk ba yëpp dem départemental daana ñëpp dem régional daana ñëpp fansee daal kuy tungoom di ko wayal naan ko Lat Coro yaay champion ñu duggee ci biir xur wi timis jot na ñu war a dem seen dëkk nag ñëpp a koy teeru mais bi biñ duggee ci xur wi foore bi am na rëbb buy buy diir am picc yor fetalam bi mu dóoree picc mi euh, bal bi dalul picc mi ci kaw dënn Lat Coro la la bal bi egsi mu jaaxaan deret ji wër ko ñëpp di yuuxu Lat Coro faatu na mm. ñu àgg ca dëkk ba ñëpp di jooy yaay ja di jooy ñëpp di jooy papa ji jooyul ñu woole ma yaayam ba mu ñëw bi yaayam ñëwee mu ne ko ku sa jëkkër fetal sa doom sa bal ma ngay soog a dal ay waaye bal baa ngay soog a dal ca la jooyee di jooy jooy métti ajaarama mhm. bootaay bu rafetee ca kañu boot la dëgg la matte ne xoto doxantoo dëgg la dëgg am na solo dëgg la solo macha allah macha allah uh-huh, uh-huh. <laughs> waaw waaw gis nga mm-hmm. nangu li liñ naan nangu jël na cëru bañ muy mm-hmm. dëgg gu wér péng mm-hmm. dëgg gu wér péng wallaay day dem ba ci ñaari kujj ba ci ñaari wujje am na dëkk boo xamante ni si mhm. ñaari kujje dañ faat mhm. kujju ne mhm. kenn ki gën a nangu lool nangul jëkkëram yërëm na ko yiir na ko macha allah suturaal ko ah, waaw moo tax suturaal ànd ak jëkkëram nag mu wexaat dëgg la mu ànd ak jëkkër ji rek suturaal jëkkër ji ah, waaw ànd ak moom ci dal Mm-hmm. bu jëkkër ja tàngee bu seral ko ba mu sedd guy ba dañu naan mm-hmm. moom de xamul wextanu jëkkëram dëgg la te fekk xam na ko bu baax a baax da mm-hmm. ciy toog da ciy toog waaye liñ naan bu doom ya laye bu layoo bu ah, jeeg bu doom ya màggee atte leen uh-huh. màgg nee naa la kee ki nga xamante ni si dafa nangu woon doom ya tubaar fakal la macha allah ñee ngay tabax ñii di toj waaw ñii di gaaree 4 4 moom mu toog di xool moom mu toog di xool uh-huh. kee bu yaay ja dikkee ñoo koy ubbil otom mu wàcc kee yaay ja sonn lool ak sayam waaw mhm. yanub sayam jóge ca àll ba ñàkk tooy xepp mhm. dikk na ba ci ëmbam mhm. doom ja toog ca naaj way wala ñu wala ñu yoru yat yaay ja dikk mu fëkk yat door ko ko nit ñi daw jàpp ko yaay ja ni ko li tax ma def li tax nga def lii mu ni ko li tax ma mel nii moo tax ma def lii ah, kon nangu jël na cëru yaay bëgg émission de sama yaay daguma la ndax layoo bi jeeg fi nga dugg yaa ngi bëgg def émission ñu ndax layoo bi jeeg bu doom yi màggee atte ndax parental buy taxawaalu ci ëtt ku ne mën na kaa jur waaye màgg tekkee jafe mhm. sama yaay liggéey na jarul di wax ku yaayam liggéey bu ne ko jàkk xam ko mbooloo moo dem ñett nga fay fekk ajaarama ñiy xaal liggéey bi ak kañuy xaalal mu ñëw ak ñi ñuy xaal ku ne nag bëgg naa jur kañuy xaal mu ñëw ndax ajaarama tunga ku sayee tungam nga sut say maas mhm. te ku sayee këpp sa ñeex nga mëq sa cere te dama ne liggéeyu ndey boutique la ku calculer perte rek sa yaay lekk sa bénéfice dafa nanguwutoon mhm. kon ñeenti jeeg ñetti jeeg ñoom wala ñeenti jeeg mhm. jeegu ginaar jeegu xar wala jeegu nag ñetti jeeg jeegu nag doole da lay dóor ba war sa kaw naa la nijaay mooy tuma dama lay ah. la mën Mm-hmm. jéegu ginaar jéegu ginaar day sañ sa ba jekk génn ci génn ci dëkk bi parfum def lépp waaye néegam dara du ca baax te loolu baaxul cib sëy waaye jéegub xar a gën a bon jéegub mm-hmm. xar dangay ngay defa sii bataan koy wutal wutal ko yëre yu baax du solu du defaru du parfum yàlla na ci yàlla musal day sol ay carax ak xartum bu bon a bon te naan dama koy oyofal te àdduna kenn du ko oyofal kon oyofal baaxul kon booy takk xamal ki ngay takk bu baax mm-hmm. ndax dama ne boo demee ci xew gis fa pédicure yi manicure yi ak ree de côté yi ak réewu milieu ak riana yi ah. ak invisible yi ak afro yi ak petit tête yi ah. ak ak mire yi ba tax nga takk ko war a takk donc na si dafa am dafa am doom te amee doom ndeysaan ñaari doom la am kenn ki taw bi amul tus ñaareel doom bi am na alal mi ngi tabax di di toj macha allah am ay dirànk am ay jég yëpp ah, taaw bi amul dara mënta tak kenn takkul ci lenn rakk ji ne ko wutal sax koy ngoro ma jox la xaalis nga takk ko mm. amul dara moom daal day nekk ci koñ bi kuy xaar matt xaar loo ko jox ko 350 kuy kuy kuy set setal set setal loo ko jox ko 350 ba ci ak mbir mi metti ko ñu ne ko demal sa yaay nga laaj lu xew mu dem ci yaay ne ko yaay bu ma làq lu tax man aw ma dara te kii am te liggéeyu ndey la ñu wax wala nangu ndey te ñoo yéen a ñoo bokk benn yaay bi ñu jur hmm. mu ne ko benn bés damaa toog may soog a sëy néeg bi mag sa sa papa ba xaaju guddi mu soxla ma ma ne ko nag dama am ay jaaru yu ma leboon trois cent cinquante lay jar danga may fayal jaar yi ba pare ñu soog a mu jox ko 350 hmm. papa ja ñu ànd kër guddi googu noonu ca la sosu moo tax yow mënoo am lu dul 350 mu ne ko sama rakk ji pourquoi moom teraanga mu ko damaa dem ba nekk mag xaw a màgget xam na àdduna lenn sax fi ndeysaan may fay di dem fay di dem ba ñu maa indi daal may yedd ma toog daal tàmbalee sëy ñu conseillé ma ci laa tàmbale nangu di tarbiye sa papa moo tax doom ji ma am fi mu ni àdduna ma koy tarbiyu kon loolu tax yow man maa la sànq ndeysaan waaye kii tamit maa ko defaral àdduna kon maa ngi jégalu a ah, bootaay bu rafetee ca kañu boot la. liir mm-hmm. bi matt nekk yàgg lu tax. Mm-hmm. njéeg njéeg moo yàggul. Mm-hmm. waaw. gis nga diggante vingt et un ans ak trente ans. ci ngay liggéey. boo amee quarante ans noppalu. wallaay ndeysaan. boo toogee am quarante ans. dang dang ja metti lool. war ngaa seetaat sa bopp. wallaay ndeysaan gis nga de. yàlla moo ko gi nga li nga wax ni sóoratu Mariam. Mhm. mooy saaru jigéen ñi. wallaay ndeysaan. Mhm. te tey bi ma mhm. toogee amoo. di tax ma guddee. tey jigéen ñu baax rek ñoo fa ne jàng alquran. imaam Moussa yore euh, daara fu nekk fu nekk rek. daara jóge na fa. muy jigéen ñu baax ñoo xam danoo nekk ci daara ji. Ngoone Sekk nekk seen yaayi daara. may nuyu daara imaam Moussa yëpp. di nuyu Amosis. parce que nit. Hmm. amul lu dul nit. walaay ndeysaan. dégg nga booy ut téeméeri nit. Hmm. ku ut téeméeri junni. Hmm. dama ngu téeméeri nit. walaay ndeysaan. bu ngeen yàggee lool. da am téeméeri nit am téeméeri junni. waaye boo amee téeméeri junni. ki am téeméeri nit dina la dominer. walaay ndeysaan. ndax nit ni tey garabam. dama koy seet ci man. sama borom kër dafa làqu. waa am wàññeeku ci man. góor nag muy gis nga sama benn xar dañoo toog di waxtaan ma ne ko. Mhm. te gis nga nit du jay nit. waaw wallaay ndeysaan. Mhm. nga ku jóge këram di la laaj. Mhm. wala méttitu sëyam. toogal nga dalal ko. dalal ko wax ko li xew te bañ koo jay bañ koo wax loo xam ni bu ëllëgee yow doo ko def ak naan bu doon mën a ak naan bu doon mën dinaa def nangam te ki doon yow bu doon mën a ñu ngi koy def lu la dul def wallaay ndeysaan dëgg la de ku mer danga wax gis nga dañ ni safara ndox moo koy fay yent bi dañ boo meree taxaw na nga toog mhm. na nga tëdd mhm. waaw kon loolu yëpp ci dalal la mhm. nga dem jàpp julli ñaari rakka mer mi jeex te ku lay laaj di sa nawle rek dalal ko ni ko muñal lu waay muñ day jeex. wallaay ndeysaan. góor góor rek la. Mm-hmm. góor góor rek la ñun jigéen ñi ñoo a dal. Mm-hmm. ku nu ci may wujj ku nu ci may wujj yëpp. Mm-hmm. danga ngaa war dal. waaye ñu may la wujj tax ngay téppi téppi fu nga jëm fa ne nga rajax rajax. da nga sa njaboot. pour lan. ah. doo nga dal dalal sa jëkkër. waxtaan ak moom naan daan du ma wujj du yoon. du ma wujj yow ku góor ka yow. yow rek la ko ah, non dal jural la ko nag. la tax doom. Mm-hmm. yaayam du nangu mm-hmm. kenn téye doomam mm-hmm. moo tax nga war a xam ni doom mënoo ko ni benn jabar ngay am wala ñaar ngay am wala ñett yow sa place fees ko rek mat dee xale nga toogal say waxtaan ak say goro toogal nga waxtaan ak say njëkkee tubaarkàlla yàlla dana la fay te ba Ousmane gis ku yàlla ku nit fayul yàlla la te payug yàlla ëpp gu <laughs> moo gën ah mm-hmm. man ko mën a rafay kon tey mu ngi mel ni ñu yóbbu la police centrale ñu ñu mm-hmm. Mm-hmm. ah xam nga boo demee ba ñu defeere la say bal jeex na sëy nag noonu la mel wallaay ndeysaan sëy amul amul amul retraite amul frontière muñ amul xaaral mm-hmm, mm-hmm. da muñ rek mm-hmm. yàlla moo ko santaane muñal ba yàlla ñëw su yàlla ñëwee mu neex mais nag damay muñ ba suba wala damay muñ ba ginnaaw suba amul amul booy muñ rek na yàlla tax sama yaay xam nga liñ ba tey nangu jël na cëru bañ nangu ci la ñuy waxtaan dëgg la bëgg rek ñu gën a góorgóorlu rek gën a góorgóorlu waaye li may wax a chaque fois rek dama ne course boo gis rek ca départ bala la dëgg mhm. gis nga départ dafa am solo mhm. waaye boo négee mhm. ba mu paase nga bëgg ko jëlaat mënul ne mënta ne mënta ne waaw mënul ne yàlla bu fekk nag la nga bëgg a jël fekk ñu ni ko ciix tey ak fukki loxo ak juróom da ngay perte da ngay perte te yàgg-yàgg da ngay perte dangay dem ba sonn mais da ngay perte mais nangu est-ce gënul Mm-hmm. di sëriñ tu ah, moo gën fuuf ndax euh, ajaarama euh, ah. bala bala maa ñëw ci sëriñ tu gi ndax la ci alxuraan def ne fankihu maa taaba laakum mina nisaa masna mm-hmm. masna la commencé mm-hmm. takk leen ñaar takk la ñett wala ñeent benn soog a ñëw benn moo mujj kon mën nga war bu la taxee maf ñandum saaw boo wàccee loo am lay lay taay lay jaar loolu dëgg la dama ne góor benn la jigéen zéro la jigéen boo nekkee nekk góor bu taxee bu taxee nekk un am benn soxna mu nekk ci ginnaawam muy diis gis nga buñ lay jay di la ràngate ba nga taxaw sa kanam mu jëkkër kenn du la hmm. limaale un ah, la ñuy wax bu dee fumiste yi ñoo lay limaale ñu naan la zéro un hmm. waaye un lañ lay wax hmm. bu nekkee nag da nga am wujj ngeen di ñaar muy cent franc cent franc moo gën moo gën dix franc ngeen am ñett muy mille muy moo tax ku am takk benn da feebar ku am ñaar yaa ngi faju ku am ñetti tane nga ku am ñeenti wér nga <laughs> dama waaye nag bu alaaji bi takk beneen nag na yem ci na yem ci ñaar rek na yem ci ñaar gis nga wujje du dara wujje du dara am ñoo xam dañuy wujje ba takkal beneen sax nag ndax mu ah? doon ndax mu doon ñaata gan ah <laughs> mille am na ñoo xam ne dañuy wujje ba far ba far nekk seen yaram dootu neexati mhm. benn ndaw si dafa dem ci armeer yi di ziare ajjuma ànd ak xaritam ba càgg muy xultu di di di di di xultu jaba di jabatu uh-huh. man ah ki dafa soofaay kii nangam ñu ko lan la sama wujju lañ suul feer yi dégg nga wujju i dof la ni dof la wujje ba ci armeel li mooy dof kon wujje ay nelaw la waaye dof ya ña ko ñoo ci bitanti buur bi dafa jël fukki ëmb na ko jox ko eh, sëriñ bari na ci nag ñu bari ñoo xam ne ko nañu waaw nag wujj dem na dootu wér ba mukk nag te dootuñu wér nag dem ba gi nga ña leen doon jay dañuy wëlbatiku waa sax di waxtaan ak wujjoo naan la yow kii nga xamante ni si dafa commencé dafa dof wallaahi azim gis naa ci koo xamante ni billaahi bu may tuul dof na ba pare dëgg la rama dëgg la dof na ba pare rama xoolal dara jaru fi dofa mm-hmm. jaru jaru ko wax la rama mm-hmm. gis nga dem ci sëriñ jox ko sa ñaar téeméer mm-hmm. wala nga jox ko sa deux mille ginaar nag moo boole mhm. ko ak nangul sa jëkkër mhm. xam nga nangu fa la commencé mhm. waaye ki dina naan jàmbal saafara jëlal téere bi yooyu amul soo ko jambee ki tëdd xiif nag sa jëkkër xiif mu war a dem nga génne yére far yére ba tilim mu wax la nga ceppatu fa la fa la fa la commencé ak ak ak ñàkk nangu demal nga jënde ko ginaar wala nga jënde ko ceeb wala nga jënde ko dëwlin toog jox ko lu mu ñàkk gis nga sama yaay. Rama. Euh, euh, waaw waaw hmm, waaw. gis nga euh, am wéyul. bakkan gis nga bakkan jàmm la bëgg. ki la gën moo la gën soxna. jeex na. te wax ju neex dafa am solo. dëgg la ndax jëkkër bu demee ba ñëw li tas ku nuy ilay xaala ngir mu noppalu ceew. waaye doo ko indil coow lu bëri. Mm-hmm. coow lu bëri ak néeg bu neexul ak kuus yi jaxasoo ak laytaay ak xet gu neexul bu bu nekku baaxu ca. Mm-hmm. soxna si dafa ñëw ci man na ma Pa Ousmane ñaanal ma sama borom kër sama borom kër dafa bëri coow. Mm-hmm. bi mu ko waxee. ma jël ab saafara jox ab ndox jox ko na ko boo àggee nga jël ginaar wis ko ci mu àgg wut ginaar gu baax togg ko ba mu ñor mu wis ko ci mhm. beneen bés ba mu ñëwaat mu jëlaat am ndox joxaat ko mu wisaat ko ci mhm. ñetteelu fan bi mu ñëw ne Pa Ousmane doo nit yaa am xam-xam ma ne ko li ma la jox du saafara du lenn macha allah ci robine bi laa dem yaarama nga ko ci robinet bi laa dem mhm. wut fa ndox ñëw jox la ko mais du saafara du lenn waaye nag ramaana ku jël ginaar gu ñor xomm wis ca loo ca wis boo ca wisu sax saafara jox ko koo xam ne sa borom kër la mhm. mu lekk ca dana kontaan waaye fattukaag wax néeg bu neexul xam nga ne jamono ji ni mu neexee néeg bu naqari naqariwul néeg bu naqari mooy lan ah jaxa kuusu jaxasoo sedd bi ñaata cuuraay moo am nga war a wut nemmali wala neel muut wala bul sëqat wala jël ma en direct wala bul bougé <laughs> wala jël ma ci suuf wala kat ab bi wala yaa ko teree neex wala référendum wala xëppante asib wala 45 minutes distance yëpp am fi yooyu yëpp wala dem dikkaat dem bay yëpp am fi mhm. nga bàyyi néeg bëgg naqari mhm. bu demee doxe wala mu dem gaaram place bu jeex mu demaat ca beneen ba yaa ko teg sa bopp kon bootaay bu rafetee ca ko ñu boot la liir buy màtte neexut a doxantoo dëgg la mhm. liir buy màtte neexut a doxantoo xoolal euh, Oumy Ndiaye nangu jël na cëru bañ ba tey ci nangu la ñuy wax waaye tere sa bopp tam sa boroom kër jigéen mhm. la ba sa jëkkër mhm. nga tere ko sa bopp yoolu damaa gis góor goo xamante ne si dañ ne ma mhm. docteur ma ne ko amu ah, ne ma décidé wu moom sax am ñaari jabar dëgg la mais nag ji góor jox ko la mu moom dëgg jigéen jox ko la mu moom mais góor it la mu moom mais joxoo ko li mu moom dana salaam ah dana ko wuti bés sàkk saaga baaxul ku yàlla sàkk toroxa sa jëkkër detteel sa jëkkër doo jox mu lekk nangu woo mm-hmm. doo jox mu lekk doo jox mu naan doo fóot doo mm-hmm. paas yàlla dogal kooku am jeneen soxna mm-hmm. soxna soo tubaar fa kàlla macha allah sama cat ak sama catal morom li ah, oh. ko toppatoo di def ba mu baax demul dikkul uh-huh. dëgg la xam dara ñor ko lu bu gàttee fan fa lay dee dëgg mhm. la day dem ba jeex. rama cër du ëpp du. du buuse mètre. Mhm. mètre du fay du toxu. Mhm. du tas. danaan ciix. gis nga ramatulaay. mu sëriñtu mënu ca dara. lu ne mu def ko ca mënu ca tus. du dem mu mujj di gaafal sax. kéem <laughs> mujj di ko jiñ ak càcc. mo mujj di ko jiñ ak ndëm. Mm, mm, ma baal ci te ci ah. dëgg la dëgg la ak ñu jaam mm-hmm. ah. mujj gi mu koy jiñ lu ne mujj gi mu yóbbu police def na lu ne mënu ca dara du mm-hmm. deñ du du du xam nga du mu mujje ah. mm-hmm. la nga xamante ni si loolu la waroon a njëkke ca depaar ba moom la mujje loolu la mujje fekk c'est trop tard muy lan mon j'ai hmm. envie de toi. Hmm. yow laa bëgg. Hmm. yow laa nangam. dama lay sentir. damay def li damay def la fekk loolu booy na ci ay noppi waaja. giraar waaja dafa mujj tourné. yooyu. di ko wan jabaram. mu di ko lii naan la ndax lii muy wax gëmu ko. dëgg la buy woo jabar ji sax daf koy def may libre. ci ak manqué ak ñàkk a nangoom. Mm-hmm. moo ko dugal ci lii mm-hmm. waaye nangu jël na cëru bañ mm-hmm. ramatulaay yàlla du fay départ arrivé lay fay wallaay ndeysaan nañu teg rek nit ñi départ ñu naan départ gagné na départ gagné na amulaay yàlla di fay te ku arrivé rek am na loo def am na loo def gis nga ñun sunu sunu sunu àjjana fa yomb ramatulaay màkka ñett rek ko sanc laaj ma ñana góor mm-hmm. gu gëm yàlla lool mm-hmm. te nangul ko mm-hmm. ak jigéen ju nangul jëkkëram ak doom ju déggal waajuram ñii rek mooy màgg surtout doom ju déggal waajuram te tey yaa ngi daw Seydina Mohamed tëdd fa sallallahu alayhi wa sallam te xeer rek la woon wallaay ndeysaan sunu maam Ajara nekk fa dem ak moom ko ba ca xeer ya mu woo ko ne koo ma fi bàyyil mun na ko yàlla laal fi bàyyil mu ne sama borom déggal Ismaïla ak waxam waa tey tey ku ne nga bëgg a dem gis nga jigéen ñi nanu foddat seen bopp mm-hmm. gis nga doom joo ci yar mu yaru mm-hmm. nangul nga baayam wallaay ndeysaan mu toog mm-hmm. am na loo séq ak bàyyam loo xam ne bàyyam kontaan na sama yaay te ku ci ku ci nanguwul perte nga de sama yaay gis nga Pa Ousmane dafa am sama benn xarit jaal toog Mm-hmm. maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu waa toobeen yëpp di nuyu Maodo Toob mm-hmm, mm-hmm. sëykat bu mag wallaay ndeysaan jëkkër mu niiru toob yal na yàlla barkeel leen kooku bu ma toogee di waxtaan ak moom day mel ni maa nga maa maa nga màkka wallaay ndeysaan dëgg la dëgg la na yàlla say ko ci barke yonent bi dama koy wax ni ko ku ma bàyyi ak yow ma jël ama ku ma bàyyi ak ma jël ah, jaar nag mhm. yàllaa ko xam dëgg la yal na yàlla def lépp jàmm ci barke yonent bi mais maa ngi ñaan ci barke yonent bi yal na mhm. jigéen ñëpp nangu dëgg la parce que jigéen lañu mhm. góor ñi ñooy suñuy kilifa mais jigéen ñi nañu retiré seen bopp boole togg ak fóot ak paase nangu yàlla baax na sax léegi jànq jaa ngi fi paase baa ngi fi defuñu lu bari mais nangu gi am importance nangu gi moo am importance ak wax xam nga xam nga ba Ousmane ndax wax neex sarax la gis nga tubaab li mu wax dëgg la. Mm-hmm. l'homme est un apprenti la douleur est son maître. Mm-hmm, dëgg gis nga jigéen mm-hmm. góor. boo ko fekkee ci néeg moom rek mu toog. nga xam ni kii am na metit wala te métit bi yàq ko teg. wallahi war nga daw dugg dem géej. sama yaay bu ngeen amul njaboot it ëllëg yàlla dana la ko fay. yal na yàlla barkeel ñëpp nag. amiin yaa rabi amiin bâtiment yëpp ña nga ba. dëgg la. bâtiment yëpp ñu ngi rawantee ca fondement ba mhm. kon fondement dafa am solo mhm. départ dafa am solo am soxna toppatoo wu la ba keneen ñëw mu soog laa toppatoo kon du safe du safe mhm. ba fi benn réseau rek nekkee ci réew mi promotion bëriwul kenn du wootee mbir mi dafa jafe woon waaye bu ñu ba ñëpp nekk fi yëpp na xujju voilà mooy am ñoo xam dañuy toog bu ñu wéetee li ñu naan ginaaru wéetoo wala waaye gëse benn tànk waaye bu ba kenn ñëw nag ñu tàmbalay def fekk na dañuy def du safe nekkul ngir yàlla buur bi dafa woo sëriñ bi jox ko fukki ëmb ay or a ca nekk da ko bu ko xaaj nag waaye séddale ko ñeent soxna yi mu woo benn soxna bi jox ko ñeent ëmb mhm. woo beneen soxna bi jox ko ñett woo keneen ki jox ko ñaar mu des benn mu jox ko xuri xuri tëb tàcc ko nijaay yaa fi mistake nijaay yaa seytaane li tax nga jox ma benn kenn ki na jëlal say may ëmb nga jox leen ci mhm. ñaareel bi ku mel ne ajaaram rek day saan jëlal nga jox leen ci amul problème mu ne ko déedéet dañ maa séddaloo buur bi daf may jam kon nañ dem ca buur ba kon kenn warta mer ñu dem ca buur ba buur bi nag lu tax nga séddalee nii mu ne ko ki ma jox ñeenti fonk na ma lool fonk na boppam mhm. fonk na ay parents fonk na samay parents fa yam ñeenti cër la ma jox ko ñeenti ëmb ki ma jox ñaar mu ne ko jox ñett pourquoi jox ko ñett ko fonk na ma fonk na boppam fonk ay waajuram waaye fonkul samay waajur ma jox ko ñett mhm. mu ne ki ma jox ñaar nag mu ki ma jox ñaar boppam la fonk gëm boppam ak man fa la yam fonkul ay waajuram fonkul samay waajur fa la yam ma jox ko ñaar mu ne ko xuri mu ne ko xuri faalewul kenn xuri gëmul kenn nekk fi di biiju di weñaaru gëmul ku dul boppam moo tax mu am benn te buur cër du ëpp du tuut borom lay tollool bu ñëpp yemoon am ñu gedd seen cër mhm. dama ne jàmbaar amul ku ñu dimbalee fi nekk waa doom day toog dugg ci teen waajur tëdd ci ëtt ba ne du ma jóg mukk ndax liggéey ko ci kër gi dara du ko jot mm-hmm. Mm-hmm. wala ñu tuumal jigéen mu jóg toog joxe reer ba pare dem ci teen tàbbi ci biir dugg fa te dara du ko jot ndax day waat dama ne kenn warta sonol sa borom kër dañ leen di toppatoo benn ci jeexal ma jox la ci waaj yi dafa am taaw yóbbu ko ca ca ca jàngukaay alxuraan ba mm-hmm. sëriñ ba di ko jàngal alxuraan cinq ans mu wàcc mu am beneen doom rakkam yóbbu ca daara ja mu am fa trois an wàcc alxuraan cérémonie am ñëpp ñëw kim yóbbu ku mag ki am fa cinq ñu ne ko ace waxal ñu jam ko fenn ci benn isib na ko waxal isib wax wax ci isib bi daal di bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy bi daal di juum ñeenti yoon mhm. juum nañ tam na fa cinq ans ñu wax xale bi waxal xale bi wax alxuraan gi yëpp juumul benn yoon mhm. yaay ja jooy mu ne ko jaru ngay jooy kii yaayam def ma yomboon te rek maa jafe woon kii yaayam daf maa yomboon lu ma sa am macha allah saa mu ko soxla muy si ma ku yomb nag ku ma yomb nag alxuraan yomb la moo tax daf maa yomb lu mu jublu mu yomb ko waaye ngaa jafe woon soo dem lu mu jublu da koy jafe alxuraan ji kese mooy tàmbali de bi lépp koy jafe ndax maa jafe woon kon bootaay bu rafetee ca kañu boot la liir buy màtte neexuta doxantoo Ousmane mbaa mhm. Ousmane mooy li ma la wax mhm. gis nga yomal xiyaam yàggul du poñe ndeyam wallaay ndeysaan lu Mm-hmm. li mu ñàkk yàgg ko xañ kese na maa gën jaay nañ ñu may tuuti rek ñu dugal mm-hmm. kii bi ndax xam naa ni <laughs> serveur baa ngi toj waaw loolu moom loolu moom dëgg boo leen bëggee dook ak ñun émission bi da ngeen di mm-hmm. def 88 628 99 99 nga ba 114 88 628 99 99 nga ba 114. yéen dugg rek ñu waxtaan bu baax a baax a baax. waxtaan ak suñu mbokku ah. jigéen ñi. Pa Ousmane. yàlla nañu yàlla defal jàmm. amiin mais déwén. bu bu mm-hmm. bu yamal xiyaamee. Mm-hmm. da nga gis nday ju poñu doom. Mm-hmm. gis nga. wallaay boo jëlee sa njànq. jël sa njeeg. jënde ko suba. da nga mere ku la deful dara. wallaay ndeysaan. nit day toog concentré wu xam ne moom mag la. te fekk la. nga mag. def yëfu nit ku yiw def yëfu gor. wallaay ndeysaan. xam nga jullit mu ngi commencé ci ngor. ci ngor. mënoo nekk jullit te gore woo mhm. mënoo gore mukk ci àddina te tegoo sa tànk yoon siraatal mustaqim mhm. boo xoolee sa njaboot rek sa war xel war naa dawal ëllëg ñii mhm. ëllëg noonu war a mel te kat parce que yaa fi toog yaa leen jur yaa toog ak seen ji yërmande daw nag sa digganteeg seen baay moo leen di noot ba yootu jot te doom da nga koy won ne ko dama la yërëm doom. da nga koy won li ngay daj. won ko ne ko kii sa waajur bi moom lay tërbiyu. parce que yonent bi. asaarul. wallaay ndeysaan. asaarul. kon yal na nu yàlla defal jàmm. wallaay ndeysaan. yal na nu yàlla barkeelal bu baax. waaw ndax àdduna nag. àdduna nag ku ku ku ku mer yaa sa bopp de. jëkkër yàq sa doom sa jëkkër yàq sa doom de. Mm-hmm. sa jëkkër yàq sa doom te day daal. suñu daal ñuy wax mais nag jëkkër yaa ngi sama gannaaw de. Uh-huh. njaboot daal suba ñoom la. Mm-hmm. suba incha allah ñoom la. suba ñoom la daa mel ne dafa am ku nekk ci ligne bi allo. allo. allo waaw waaw allo. allo. allo allo. waaw waaw maa ngi lay dégg. na nga def soxna Rama na nga def. sant yàlla ba noo tudd fooy wootee. maa ngi wootee campement. dëgg la na nga def ana waa campement. ñoo fi. alhamdulilah. maa ngi fi. sant yàlla bu baax. yaa ci jaam. maa ngi ci jaam noo gisee thème bi. thème kay kontaan naa ci trop. Mhm. Mhm. thème bi kay kontaan naa ci bu baax. Mhm. dëgg la. waaw. jigéen naka la war a doxalee ak borom këram. ah. ma ne jigéen naka la war a doxalee ak boroom këram. xanaa jàppale borom këram. xanaa di jàppale borom këram. dëgg la. di nga jàppale. dangul sa jëkkër. lu mu bëgg nga defal ko ko. wallaay ndeysaan. di dox ci ay waaw man a noonu laay def. dëgg la. non non baax jërëjëf macha allah ajaarama mhm. comme que yow yaay docteuru jeeg ji. waaw lii yow la yow la ndax docteur du caaxaan te mais mi ngi lay seetaan petit déj kon yow yàlla defal na la sas. <laughs> dinañ gën a jàppale. ndax am na ñoo xam teeyul. Mhm. gis naa koo xam ne ni yax ay yax tax mu tas ay yax yax dem te jaay ko tu yàpp ba guddi mu mu ko wutal ma ay yax mu doog ay yax mu jox ko yax yi bu jëkkër ji ay ayee ci biir néegam mu teg yaxe yi ci bunt bi. bu xëyee gis yax yi ne ah sama jëkkër bu ayee ci man mbaxal la ñuy togg bu sama wujju day jëndi yàpp macha allah lakkalu ko daal tey <laughs> tey baaxul jigéen day tey moo tax jigéen dafa uh-huh. waa ji dafa ay soxna di caaxaan ay alalam ba alal ja jeex ba mu tax ba ci alal ja jeex jigéen euh, soxna yi ku ne ko da nga doon wër di ndaataataal mu fasa mu fasa soxna yëpp ñu may ko ku bari feem macha allah bari feem mën a sëy uh-huh. mu nag ba xaaju guddi mu defar néegam bam na mu waree cuuraay fépp jàkkaarloog borom këram. Uh-huh. naan ko nijaay ndaata tallax nijaay ndaata tallax <laughs> dégg naa da ngay bañ ndaata tallax nijaay xool ko ba jëppi boobu xool ko ne ko bañu ma ndaata tallax bañu tallax ni nga koy defee ak ñee nañ ko doon defee bokkul ndaata tallax gis na kon mbir mi ni koy defee la ay feem la nekk ci sa papay jàmbur ci digg ëtt bi nga naan ko ndaataata lax bu la fase yaa tooñ sa bopp dëgg la boo bàyyi rek ba mu wiir ñeen ñaar kese mag la doful dina jàpp ko fi nga koy waxee ak ni nga ko waxee la fam ko ko waxee macha allah ñaar kese la xaaju guddi la kenn fekkewu ko mu woo ko ci ndaataata lax mu wuy si ko kon mbir mi muus da caa baax dama ne kon néegu sëy faalal gor a fonkal njëkke kon ñu fal la sëy biiri maas bul fay bul fuuy mbaa ngay fa lu ko mooy boo faatoo ñu fàtte la nijaay du morom ab sang la saxal ci ndigalam tey mooy te ay terem lii boo ko defee jur mu barkeel ñu mu boo doo bëri dërëm itam doo am ngërëm gumba tëx lu de moo la war nagam bëgg ngaa mucc màggatum yor yor waaye suur kilo yekk libar tanan ceeb bi daa gom lu jaay nga leb toxeyoo gonto dëkk xul toog marsa neexul jigéen bu firam réew du jur lu dul wuyu bu mandootu muñ boo duwàllu yu bootaay bu rafetee ca kañu boot la liir buy màtte neexuta doxantoo non Pape Ousmane damaa kontaan ci yow bu fekkoon ni lu bari dana wàññeeku. wallaay ndeysaan. agresseur yu bari dana wàññeeku. Mm-hmm. xale yi yu bari dana wàññeeku. ci ñoom mm-hmm. xam nga tax. lu tax. na loo xam ne boo ko defee loo am jëlal. Mm-hmm. boo ko defee sa borom kër loo am jëlal <laughs> nag. boo tàngalee sa xol borom kër bu guddi. Mm-hmm. ba set sa doom màndi. Uh-huh. dugg ci kër gi. yow ni la xam nga lu ma bëgg. Uh-huh. damaa bëgg nga jox ma xaalis ba pare yor paaka taxaw. Uh-huh. soo aree dugg sa néeg. Mm-hmm. tëj ko. Mm-hmm. di nga ni lii maa ko jëf. walaay ndeysaan. waaye boo toogee nag. yërëm sa jëkkër yéyim ko. te doyloo. te yàlla rek tax. walaay ndeysaan Ramatulaay nit jox nañ ko dépense fukki dërëm. walaay. nit jox ko dépense ñaar fukk. Mhm. te kenn mhm. yow ñu jox joxuñu ko dara waaw nit xëy joxuñu ko dara nag. Mhm. balaa jëkkër ma yeewu mu xëy toppatoo dara. te loolu yëpp nag liggéey sans la. yàlla moo ko moo ñaale. te lu metti tey rek. lu metti tey bu subaa day neex. waaw. moo tax bu benn jigéen nangu. sa moromu jigéen di la sóob. naa la bu ma doon yow nii lay def. muñal. Mhm. yàlla ànd aguy muñ. wallaay ndeysaan ne la nee na ñi muñ maa leen di fay. te mhm. nag yàggul. Mhm. vingt ans. quarante ans. nga xam ne nag li nga doon muñ yàlla yeexul de. yàlla yeexul day xaar. xaar googu nag ci ngay jóg. Ah. découragé wala nga wax am mi njombi kam. yàlla fay salaam. waaw xam sa yalwaan. xam nga ñu ma gën a ñu may gën a ñaax. waaw jigéen ñi seen jëkkër yi amul dara. waaw. jigéen ñi seen jëkkër yi yor mm-hmm. lu ni gàññ mm-hmm. ñooñu damaa yaakaar sax ñooy gën a foye sëy mm-hmm. ñi nga xamante ni si seen borom kër yoruñu ñaar dërëm ña ngay toog di muñ di muñ jigéen borom këram mën na ko bañ a jox dara bu ñëwee mu toggal ko ay ganaar ba mu neex tubaar fa kàlla macha allah def léppam impec lu sedd lay naan nga jër lay naan fuural kaasam ba fuur waaw ci lal dara bu weex tàll lay tëdd. macha allah jigéen tegg na at nattam sax defar néegam ba mu. waaw loolu loolu moom loolu mm-hmm. moom dëgg la loolu dëgg la. ngir mm-hmm. suturaal jëkkëram. Mm-hmm. jàppale jëkkëram. bëgg a sëy ngir am fi doom ju baax. dëgg te yàlla rek tax. wallaay dëgg la. <laughs> jigéen ñi nga xamante ni si. Uh-huh. dañuy liggéey nañ ma jéggal. jigéen ñi nga xam ne seen jëkkër ñi ngi leen di jox lu dul jeex. ñoo ñoo gën a cof sëy parce que dañuy xam dañuy dañuy xeeb seen mm-hmm. jëkkër. ñooñu ñooy gën a. jëkkër ramatulaay. Mm-hmm. bari na fi waaw bari na mm-hmm. jigéen ñoo xamante ne si sax dañuy jàppee seen jëkkër dof. dof bu am xaalis la. waaw kii daal lu mun a jox rek baax na. non xoolal kii daal bu solo baax na. bu solul baax na. bu lekkee baax na. bu lekkul baax na. mais loolu du yoon ramatulaay. te loolu nangu woo. loolu du nangu woo nangu woo déedéet. sa borom kër. déedéet defoo li nga war a def. baab jeeg def ko mm-hmm. gis naa jeeg boo xamante ne si dañ ko takkal wujju mm-hmm. wallaay ñoom ñaar ñëpp na ne ca kër mm-hmm. kii ne ci biir néeg kii ne ci biir néeg waaye dem na ba xam na ni mooy tooñ boppam mënatul a ndaw sa li tax mënatul a ndaw sa lépp lu mu doon bañ rek ndaw sa dafa ñëw nangu ko <laughs> ah, léegi nag moo tooñ wallaahi ay kaakaam dem ni moom wujje Mm-hmm. ak ku ko keneen mm-hmm. sax moo ko gën a wujjee waaw ak ndaw si mm-hmm. parce que moo tooñ boppam moom moo tooñ boppam ndax moom moo nanguwul bu nanguwoon ndax fii loo fi def defit la waaw te defe naa ne jiitu ci kàmb sa génn ci biti baaxul de baaxul yàlla nañ ci yàlla baaxul de damaa bëgg jigéen Mm-hmm. jigéen joo xamante ni si yaa ngi dugg ci sa néegu sëy mm-hmm. li ngay wax léegi ak njeeg yàggul góor góor lu bu baax a baax ba bu ëllëgee bu keneen tegoo ci sa gannaaw mm-hmm. nga bu ñëwee lu mu def du safe même lu mu metti metti metti muñal boot ko roganti ko ndax nag ku jub neexul looloo jafe nag Ramatoulaye ku jël waaw ah, ku jël teg ko ci sa kaw neexul mën nañ ko sax bañ a teg ci sa kaw ndax bari na góor ñoo xam sax dañuy yamale dañuy yemale bu baax a baax duñu mm-hmm. jeng mm-hmm. mais la jeng lay tax ñu jeng yow yaa koy def mm-hmm. bëgguma jigéen ju jiitu ci kàmb sa genn ci bi loo mën góorgóorlu góorgóorlu bu baax a baax ci sa borom kër boo góor góorgóorlu ci sa borom kër lu waaye dikk def ko bu xoola lu mu mën a defit Mm-hmm. danaan carrément sama jeeg def na ko ba pare mm-hmm. dara faqatul ba wallaay ndeysaan li nga ramatulaay mm-hmm. waaye ñàkk a nangu loolu lépp a nangu ci ñàkk la loolu lépp ci ñàkk a nangu la loolu lépp ci ak it naagu naa waaw naagu defen doo am naagu du ma am du am lu ma neex laay def sama jëkkër ji kat ñemew ma lu ma neex laay def lu ma neex laay def lu ma neex laay def lu ma neex wax mais ramatulaay loolu la neex ngay def loolu neex wax ba doo jox mu lekk mu naan man gis naa fi góor goo xam ne. Mhm. ba mu takkee ñaar la commencé añ. Mhm. amul woon añ doo am. Mhm. parce que ni muy añee du añ. xanaa daaw joxe dépense. ankay ankay mais ci naagu la ko jëkkër borom teg euh, la ko borom euh, la ko jëkkër jabaram teg. ni lu ma def baax na añ baa nga nee. daa nga la jox sa yaay sa papa. añ baa nga ne boo soxlaa dem añi. yow dem nga liggéey ba ñëw taloo dara. li ma la ni léegi. say amul retraite mhm. liggéeyi nga ba ñëw taloo dara mhm. yaa nga tëdd sa jëkkër ak ca waañee defar lu mu lekk mhm. mooy ataayaal boppam mais loolu bu takk keneen indi mu indi problème yi am na góor ñoo xam ah. moom dañuy lakk jigéen waaw man de nee naa ku ci mel ni sama borom kër bi si sengaari njar meew tëmbal galaas tubaar fa kàlla macha allah day lakk <laughs> jigéen wallahi azim xobi lekk wallahi ndeysaan day lakk jigéen wallahi dafa baax wallahi macha allah ñu sant si sa ñëpp a baax dëgg la dëgg euh, kooku day lakk jigéen. Mm, mm, mm. kooku la nga ko war a defal moom moo la koy defal. moo tax def attention. wallaahi azim wallaahi day lakk jigéen ah. day lakk li nga war a def moom moo koy def. bala ngaa yeewu di di ndékki. mën di la ndékki dem na defar ndékki def yëpp indi moom. wallaahi di la ndékki loolu du dara. Ah, madame lii du dara. waaw xam mm-hmm. nag yow. ne woo mm-hmm. bërët. Mm-hmm. sawaroo. da nangu. da ngay daal di kii lan ko lan may defal moo ma gën a. Mm-hmm. da ngay da ngay daan ne kii mm-hmm. boo keree mm-hmm. yàlla xam na ne da ngay yàq jigéen du ker lépp loo xamante ni si da nga ko ci doon ut doo ko am doo ko am doo ko am jamais doo ko am doo ko am nañu góorgóorlu bu baax ci suñu borom jaarama da ngaa baax ah, ndax jéeg ji toog di gërëm borom këram di wax li ci moom baax dëgg la waaye tamit yow macha allah dana la fay baax rek am solo kese korité bi weesu dama dugg ci marché bi gis jigéen ñi di jënd pomme de terre kenn jëndul pataas te pataas moo gën a saf suukar pomme de terre kum damm sa bañ fekk na muy ay kenn jëndul pataas ñëpp pombité la ñu jënd mhm. pourquoi pombité a baax mën a ànd ak ku baax ku baax kan muy yàpp yàppay waaju baax dangaa baax ah, baax am solo muñ muñ laa ci xam ku muñ muñ kon cere ju neex jigéen ju baax a koy mooñ reex-reex mhm. la naa ku reqateeti yaa moom ku aja bañ ku séenu kaw far naa luum muñ rek am solo xaj ak muus dañoo jaawale seen tur xaj di muñ yàlla na ko muñal maay fay wa taqu yawman turja'una fii ila allah mhm. suma tawaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ne ko muñal maay fay xaj ñu tuddee ko xaj te kat tuddul xaj muus la tudd muus ñu tuddee ko muus te kat xaj la tudd xaj nekk ci kër gi si lay lekk moom mooy fuglu kër gi mooy wattu kër gi boo demee ba aéroport mooy fóon drogue bi moom macha allah dese lay lekk mooy gaar kër ñu ne ko xaj nga mu muñ te kat moom macha allah muus la tudd muus mi nga xam ne moom tuddee muus ca kaw laal ba lay nekk tëdd nga dàq ko mën a gan am na dem ca waañ ba këf jën nga wala yàpp wa te buy am doom ci armoire bi lay amee doom kon kooku nekkul ku muus te fu mu nekk nag intérêt moo ko fa wàcc ñu ne bañ am doom nag yàlla ne may muus am doom doom ci armoire bi ñu jël xale bi gën a të daal koy def ci saako soble jox ko mu leen di mu leen di diri sànni leen marché ba moo tax muus yëpp macha allah ñu teel a faatu bu dee xaj nag màggale bu dee xaj xaj day am doom ci kër ga taqaloo kër gi ko indi ci biir kër di ko wattu di ko defar di ko jox meew macha allah nga dem France wala fu mel ni Fann ñu teg ko ci 4-4 ndayee ma ku liggéey kon bootaay bu rafetee ca kañu boot la liir bi màtt neexut a doxantoo waaw mm-hmm. waaw Ousmane loolu yëpp ci nangu la uh-huh. loolu yëpp ci nangu la mm-hmm. man ku ma xaritool rek mm-hmm. ak ku ma bëgg man damaa bëgg nga bëgg sa jëkkër. wallaay ndeysaan fonk sa njaboot. Mm-hmm. ndax bu bëggee sa jëkkër fonk sa njaboot. Mm-hmm, mm-hmm. Ah, euh, boo gisee waa amoo mënu ma leen a. ñu ngi ñuy ñu des si ndax waxtu. voilà waxtu bi xam nañu ah, voilà da ngay da ngay da ngay kii daal di daal di tàggatoo waale. tàggatoo waale <laughs> parce que tàggatoo waale bi dama déglu sama benn xarit Thiané Ndiaye. Uh-huh. Uh-huh. kooku lu ma naqari. ak lu ma neex yëpp. sama kër lay toog ba ma sedd. dama ko ñaanal yàlla yàlla barkeel ko. taayu Mère Cissé ci kaw ba ci suuf mm-hmm. di la leen ñaanal yàlla di gërëm Yata Ndiaye ak Assane sama doom mm-hmm. di gërëm sama doom si Ahmad Bamba Mbaye mu nga Italie di ko ñaan ñaanal yàlla di gërëm sama caat mu góor mi ne France mm-hmm. nag ndax li lim juum di gërëm nag sama doom bu góor boo xam ne mooy ëmb njaboot gi yëpp Mm-hmm. muy Pape Mor. Mm-hmm. macha allah maître Mbaye yal na mm-hmm. yàlla barkeel ko. yal na yàlla téyel ko boppam. di gërëm sama goro yi ci kër ga. di togg ba mu neex de yàgg. samedi ginaar laay añe moom laay reere moom lay ndékkee. nga fa jiitu di saata yàqul dara. yaa ko liggéey waaw. barke kaay lekk rek. yal na yàlla barkel njaboot ndax bu ma waxee Pape Mor rek wax na ñëpp. gërëm aji yaasin sama doom sama <laughs> doom yooyu kenn tiitalu ma ci ak day sofetu sama star bi ma àndal ak ak alimatu sadia <laughs> di gërëm mhm. buur Modou mhm. Ndiaye sama rakk buur wallaay ndeysaan ak njabootam mhm. naasira di gërëm bu baax mariama sama yaay ak njabootam di gërëm waa kër Absa Ndiaye sama taaw yaay yu nekk tëgge uh-huh. di gërëm amo sis hmm? yëpp <laughs> di gërëm jaara gay <laughs> jaara gay uh-huh. kooku sama bala maa ngi koy di gërëm ñëpp yëpp barke yonent bi waaw di la gërëm aussi yow Ramatulaay <laughs> euh, euh. sama rakk nga da nga diñ xam nga nit bu diñee am mm-hmm. personnalité mm-hmm. man dooma mën yëkkati ci falaa falaa mais xam naa sa dignité mm-hmm. yal na yàlla fay la te bàyyi la ak sa jëkkër di gërëm sama sama parce que nag yaay yaay yaay rakku maman Janté <laughs> dëgg la dëgg la waaw kooku dama ko ñaanal bu baax ñu ñaanal njaboot gépp nag ci barke yonent bi yal na yàlla def ngëneel ci Sénégal mm-hmm. Mm-hmm. def sotti fi dal mm-hmm. ak man ak yërmande ci barke yonent bi loolu rek laa kontaan naa <laughs> yàlla ñu yàlla jeeg ji dégg ko dégg rek ko wóor ñàkk dégg baaxul ndaw si dafa dem ci docteur Senghor pharmacie la pharmacien la day jaay garab ne ko jaay ma sirop mu jaay ko siro bi ne siro bi kudd guddi la kuddu ngoon kudd bëccëg mu ne ko man da jaaxal naa suñ kër genn kudd dafa am xaaral ma dem marché wutal yeneen ñaari kudd ki déggul kon dégg rek am solo rawatina dégg rek am solo kon yàlla ak dégg ak topp bu man sax émission bi a nekk mi ngi jeex <laughs> li ñu préparé woon yëpp xaju waaye ñu gërëm suñu sëriñ ba ci usine benn tali borom mhm. HLM ak benn tali Cheikh Ahmed Tidiane Sarr mhm. di gërëm sëriñ xaadim xaadim bu waagu oustaz xaadim bu waagu ñaay ak jeune marabout du troisième millénaire oustaz Aliou Niang mhm. Lamine Mbaye tamit maa ngi gërëm moom euh, di borom kër Awa Ndiaye ca Njaareem di jeexal tam sëñ Modou Diouf ca gëñu xojal Modou Diouf mu Kumba Saate maa ngi lay baax Kumba Saate ku muñ la allahuma salli ala sayyidina maa ngi gërëm Xuri Ndiaye bu baax ak ndax dafa yor doom ju baax ci man di di eh, ak Adi mhm. maa ngi leen di gërëm. amoo 456 yëpp maa ngi leen di gërëm. jërëjëf di gërëm sant nag biyaa gi. bolog rose bolog jaune bolog <laughs> vert maa ngi gërëm ñëpp. jërëjëf jërëjëf ñëpp Ramatoulaye Mame Ndiaye mhm. euh, naa la bu baax a mhm. baax gërëm naa la bu baax nee naa sama plateau bi ku ma fi teg rek exemple ngay doon te yow macha allah ba nga toogee ba tey jógoo sa borom kër bi nga xamante ne si dafa dëddu yàlla yàlla na yeggale àjjana ci barke yonent bi amin amin gay amin vraiment damaa kontaan ci bi ma la ko waxee nga yombalal ma ko mm-hmm. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñëw sañse def ba mu baax daal di ñëw te xam nga yow ci yi ngay dox waaw ci yi la yëg manaa manaa de bande sooki fin lay dox ah. waaye allah ci ci yi rek lay dox moom mooy bàjjanu maman Sophie waaw maay bàjjan ak ak Nasira ak Nasira waaw yéen ko damaa tàmmal loo xam ne nag ramatulaay dootuma ko am moo tax nan ma banii rek may mm-hmm. ñëw di dem ba àjjana man ak moom. waaw waaw barke yàlla incha allah incha allah di kontaan yow tamit ci yow vraiment. na bëgguma woon mu jeex ma sañoon dañuy xaabaabal ba vingt trois heures waaye nag soxna betee gi ñëw léegi ci jigéen di di ñu xaar loolu moo tax maa ngi leen di sant di leen gërëm di gën a waxtaan bu baax ak ak jigéen ñi ñu gën a góorgóorlu bu baax a baax a baax sëy rek la ñu am amuñu lu dul sëy dëgg la nañ leen lu bu baax a baax te nag tubaar fakal la macha allah yàlla dañ ne fayatul weer wu dee déedéet le quinze lay fay day fay sax journée continue yàlla journée continue day fay sam journée continue nañu góorgóorlu bu baax ci suñu borom kër yi di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant bu baax a baax ci yóbbante boobu nga xamante ni si yóbbante la dëgg moom si sengaari dafa sawar rek que bi ma ko dafa sawar rek macha allah dëgg la mi ngi ci suuf. dafa sawar rek. nuyul ma soxna Miss Guèye. waaw incha allah Miss Guèye dafa sawar rek di wax. Mm-hmm. waaye liñ naan mm-hmm. feccum liir bu neexee nday jaa jàpp ca mbagg ya waaw mm-hmm. tubaab fa kàlla ma allah <laughs> ramatulaay yambar wata ñu lekkee liir bu yambar ramatulaay maa ngi gërëm tam Bokar Kan dëgg la Bokar Sadiq Kan dañuy dagg de gërëm di ko sant bëgguma ñu dagg ñu bëgguma bëgguma <laughs> maa ngi sant ñëpp di gërëm ah, ah, ah. di ñaan nag macha allah suñu benn at bi ñu feetal incha allah te noonu lay demee sax nag ndaxte Cheikh Al Khalifa noonu rek lay demee dañu koy traité téeméeri ak ak dem ba mu baax incha allah di sant Plaignant Couture nekk ca Petit Mbaaw moom ma defal tey baas bu baax bi tey jii ci journée de la femme dama ah, maa ba mu baax sant Ndella Amar ci maquillage bi di sant Cheikh maa ngi sant di sant Fatou nag Fatou Fatou mi ma yàq. maa ngi sant moo jàpp ci combat bi sama yu baax. <laughs> di leen joxaat di daje eh maa ngi maa ngi sant bu baax a baax. Mm-hmm. Adama Ndoye sama lebu boobu. dëgg la. comme dayum ay tëndoo chéri baara mm-hmm. sama lébu boobu nga xamante ni si lu ma bëgg rek dama koy woo téléphone rek mu mm-hmm. rek leen ma ko ba mu impec Adama maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax ak ayta sama xarit ah, waaw maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm di leen joxaat dig dajee ba rendez-vous dans quinze jours incha allah jërëjëf Lamine Baye Mohamed